alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin al amiin wa ala aalihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba àddina tukki mbokk yi ajjuma ji weesu doon nanu waxtaane wàccuwaay bi liggéey am ak solo simu am ak nit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññee tey nag nu bëgg waxtaane li waral liggéey am wàccuwaay boobu am solo soosu li ko waral nag mbokk yi mën nañ ko mbir yu bari la mbir yu bari la eh, bokk na ci nag li liggéey nekk jumtukaay bi yëpp solo bu mën a may nit muy dunde lu lew liggéey dafa doon lu mën a may nit ki muy dunde lu lew bokk na ci it li liggéey doon luy mën a may nit ki mu mën a sukkandiku ci boppam bañu sukkandiku ci keneen tey nag dañuy waxtaane rek lu njëkk li te mooy liggéey doone luy dimbale nit ki ba mu mën a dunde lu lew dundelu lew ni nu ko xamee sart la buy tax yàlla nangu ñaan sart la it buy tax yàlla nangu mbooleem jëf yu baax yépp kon ki yàlla di nangu ci moom ak ñaan mooy kuy dunde lu lew ki yàlla di nangu ci moom itam jëf yu baax yi ci des yépp itam mooy kiy dunde lu lew loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo na xamal bu dee ci wàllu ñaan dafa wax ne yàllakat dafa sell dafa set lu sell rek lay nangu itam lu nangu lu sellut te yàlla yonente mooy wax mu ne yàlla li mu digal yonente yi loolu la digal jullit ñépp ci alquranul karim yàlla da cee digal yonente yi ñuy dunde lew waaye da cee digal jullit ñi itam ñuy lew yonente bi wax ne nit dana toll ab diggante ak xat-xat boo xam ne ku fa masaana toll bu ñaanee yàlla nangul ko waaye bu fekkee nit kooka nag la muy dunde lewut la muy lekk la muy naan la muy sol la muy jëfandikoo daal lewut kooka bu tollee ci diggante booba itam bu ñaanee yàlla du nangu ak ñaanam dan doon ci yàlla musul bu dee ci jaamu yàlla yi ci desit joxe ne misaal ci aj moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane ne kuy aji te alal jëmuy yóbbu lewut kooka deesul nangu ak ajam bu demee ba naan yàlla wuy si la ndax kuy aj loolu lay wax labbayka allahumma labbayka jooju ñuy wax li muy firi mooy wuy si naa la ndax yàlla woote moo digaloon seydnaa ibrahima bu yàgg ne ko wooteel wooteem boobee ba nëgë ni ku dem danaan yàlla wuy si waa la waaye bi na ne ki nga xam ne alal ji muy aje lewut bu demee ba naan wuy si naa la yàlla da yebal ku naan ko kenn soxlawu la fi kenn woowu la fi doo fi jële lu dul bàkkaar loolu kon ci aj la ko waxee waaye misaal la rek ci gépp jaamu yàlla goo xam ne nit da koy def te fekk dundewul lu leew loolu yonent bi wone moom la sëñ bu mag bi itam gën a leeral rek wax na moom it leeral loolu lépp wane ne mi ngi moytuloo nit ñi ñuy lekk lu lewut ndax nee na lekk lu lewut day mel ne day jéng nit ki ba du mën a jub ab jatang lay doon ba nit ki du mën a jub muy wax ne fu ngeen toll dee leen sàkk lu leew ndax lekk lu leew mooy tax nit ki mën a jub mooy tax nit ki tam mën a topp yàlla mu ne sa biir bi bu ci dugal lu araam bu ci dugal lu am lënt lu am lënt mooy loo xam ne wóoru la ba xam dagan na wala daganut wóoru la ba xam lew na wala lewut mu ne nanga ciy dugal rek lu la wóor ne lu lew na lu dagan la mu ne boo bëggee mën a topp yàlla mën a topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam del dunde lu lew ndax ku topp yàlla du ko yomb te bu ko defee itam du ko amal njariñ mu wax ne xam-xam ak jaamu yàlla lenn du ci jariñ nit kii bu fekkee day dunde lu lewut mu àgg sax ci ne kuy jaamu yàlla te fekk muy dunde lu lewut muy dunde lu araam nee na kooku bu ëllëgee bu àllaaxiraa topp yàllaam googee du ci jële lu dul rëccu du ci jële lu dul ak suufe ndax duñ ko ko fay boobaa day rëccu ndax lim doon def lépp bu ëllëgee du ko amal njariñ yal nañ ci yàlla musal noo ngi ñaan yàlla mu mayenu ci lu lew ba duñu aajo ba duñu aajowoo lu lewut di ñaan itam mu may nu lu nu doy ba du nu soxlaal keneen di ñaan moo defal ñu àddina ak àllaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunt yiw yi soob na ci ak njub mottali sunuy mébét meenu fanu gudd ak wér ak mujj gu rafet